noonu yi moom wax dëgg yàlla maam maanaam même bu doonul loolu loo xam dañ koy lekk sax uh-huh. maam daa rafet ci xol lii bu ko lif la am dogalul toon sax daanaka nañ ko lekk wallaahi bi aussi macha allah man sama xol dafa sedd dafa mel ni yow instant yi suur nga te demagoo fenn suur naa te demagoo ndax lii boo ko dee gis bu yàggee mën ngaa suur te demagoo fenn te yii ñu muur yëpp ci wàllum luy dagan ci biir la uh-huh. te fi doon yi war a ngi ah? moom mooy wane yu baax yooyu maay wane yu muy noonu tey ñu nekk fii ci waawoon tey gis nga ak ah, moom nee na yëg nga yàgg am naa na am bidi alors que boo yaa ngi taxaw bidi dañu ne bala Bul push, dale, bul push. Messieurs, dames, très chers internautes yi ñuy suivre ci Feeling Dakar Univers Info ak Dakar plus les meilleurs sites d'actualité au Sénégal tey nag ñu ngi taxaw ak mon ami mon euh, ki nga xam moo di Lëx Lëx di influenceur bu mag un grand tiktoker ñu fekk ko kër Aziz Ala Ndiaye mhm. Lëx maa ngi lay ziar jërëjëf ma léemu xam nga yéen sonaté daa aajowoo léemu xaar ma léemu yàlla na ma yàlla dimbale ba du ma wax heural du ma wax toj toj du ma wax na ma Sénégal xeebe barka fa ajo dama ko daan jot si téléphone yi nii rek jàpp ma woon na lu dëgg la waaye tey dem naa ba jël sama loxo teg ko ci xam ne lii na wax dëggal yàlla dëgg la les français bi naan c'est ou c'est c'est le regard de la beñe ak lu daan mariage Aziz bi noo ko gisee parce que am ñu naan euh, li mu maye ci càng dafa bëri yàq la xolam bi yaatu na trop xolo xolu Aziz Ndiaye moo xam naa ne yaatu moom may ko jox ko jigéen Sénégal moom doon fi jigéen a dàq doon fi góor hmm? waaw waaw doon fi jigéen moo dàq doon fi góor ndax benn benn euh, benn ngoon nga am 30 millions loolu moom mburum làmb lañ ko daan gisee moom waaw mburum làmb lañ ko daan gisee léegi nag yàlla dogal na gisatuñ ko mbaru làmb léegi ñu ngi ko jox jigéen ba pare boole ci ab oto ab iPhone 14 15 Pro Max waaw kooku moom wax naa ci li am solo mooy nu sëy ba tas sëy ba dee moom lu ko asi njaay kajji xeer lu mu ko def war naa réegu ndax ñëpp ko bëggoon yàlla moom la ko jox na voilà bu defante mooy perte bi barke yàlla mooy perte mooy perte moom ni mu war a def bu ñëwee na ñëw toog def ni nga xam ne ni moom la euh, miis def topp ci ginnaaw borom këram génn ay millions yu bare bari ci kafaam def ko ci diine l'islam bi rawatina néew gi doole yi ñi ko amul ak ñi ko am loolu tamit maanaam ban jàngale la jàngal la ci biir réew mooy ci Sénégal. Mhm. jàngat la aussi tamit ci àdduna. Mhm. ndax doomu aadama bi da koy xool ci sa bopp. Mhm. Ah dimbale dafa baax. jàppale dafa baax. kenn amul yàlla rek am nag. yàlla am na ñu mu dénk. ba nga xamante ne am nañu xol. di partager nit ñi. kon Aziz yàgg na ko def kon ko waxee léegi rek. kër kilifa diine yëpp la sekk ak jàmm. ñëpp la sekk ak teraanga. ñépp la sekk ak lépp li nga xamante rek lu baax la ci réew mi. te loolu exemple la ba xamante ne vraiment képp ki nga xamante yàlla dimbali na la war nga cey jàngat war nga dimbali doomu adama yi war nga jàppale doomu aadama yi war nga gëstu doomu adama yi parce que lii la yàlla jox da nga partager ko nit ñi te Aziz mu loolu mu ngi dëkk ci loolu donc dañ koy santale yàlla rek jàppale ko woon xam ne yàlla na ko yàlla sàmm sàmm njabootam bis bi nag bis bu rëy la ba nga xamante ne ah, bisu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc daal mooy loolu kontaan ci yow Omar. jërëjëf jaajëf li ñuy continuer mooy daaw ngi ñëwoon fi gis Aziz ni mu defoon gis ren ni mu yokki te seen and yéen ñaar dafa mel ni altine ak talaata la bis dox bi lan ngay wax sa diggante ak Aziz Ndiaye. waa ñaanoo ko jàmm rek ndax euh, chaque année yaa ngi def lu baax même bu dul chaque année peut-être euh, chaque année la ñuy gis ni présenté wu ne mu ngi def lu baax mais ci la dëkk ci fameem ci njabootam ci ay mbokkam donc bu yàlla dogalee lii mu dogal nag aussi tamit vraiment. dañ ciy sant yàlla rek te xam ne am nañ koo xamante ne référence am nañ koo xam ne mu ngi jàppale ay nit ñu déew néew du doole yi am na koo xam ne aussi tamit mu ngi gëstu nit ñi nga xamante ne seen loxo jotu seen ginnaaw Aziz dañ koy ñaanal yàlla rek yàlla guddal fanam mention spéciale di ñaan guddi yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla na fi kilifa diine yi xalifa généraux yëpp yàgg fi teewee ci barke yonent bi nga dégg Serigne Mountakha wax ko li ko wax ni ko bu mas yoon même boo fi dee ñëw doo fi indi dara li ngay defar waa Tivaouane rek doy na ma sëkk nga déggit waa Tivaouane wax yi ñu wax Aziz Ndiaye jëf yooyu lan ngay wax jeunesse bi nga xam dañoo topp ci ginnaaw Aziz Ndiaye te bokk ci pas-pas waaw mais pas-pas ak yéene bi xam nga yéene dafa am solo ngay def di kontaan wala ngay def sa xol di gën a fees loolu beneen affaire la Aziz boo gisee buy buy def dara lu baax xolam da ci set da nga kii lii muy def lu baax ne da ci am yëg-yëg ak Pastef kon donc ñoo ngi koy ñaanal fi mu féetee mooy ci waa Tivaouane fi mu féete mooy Touba fi mu féetee mooy fépp kenn mënu ko natt fenn ci loo xamante ne ci lépp lu baax la muy def kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla sàmm ko rek nga ñëw gàmm goo xamante ni Baye Alé Ndiaye yàlla dafa def tabaarakallaahu fekk ku fi hmm. lan ngay wax ci ñàkk présence su Baye Alé ba xam lan la def ci gàmm gi ban effet waa sant yàlla rek yàlla suñu borom moo ñu ko joxoon yàlla moo ko yóbbu yàlla yërëm ko te xaaru ko àjjana ñim fi bàyyi fu mu tëdd dana nelaw ñim fi bàyyi xelam dal na ndax ku am doom mu lay sargal topp ci say tànk ba lépp li ngay def mu koy def moom fu mu tëdd xelam dal na ñu ngi koy ñaan rek yàlla yërëm ko te xaaru ko àjjana. Balla Gaye fan si nee fan la Balla Gaye toll. waaw maa ngi rek sant yàlla rek naa ngi ci jàmm nekk ci li mu war a nekk rek maa ngi ci jàmm bu baax. jërëjëf mm. ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm. merci beaucoup